إن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم كتبنا في الزبور من بعد الذكر من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن waa وإن أدري أقريب نم لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق ورب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 mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp ci bis bi e, li ñu sant ñu war ko def ci jotaay bi mooy e, présenter thème bi te mooy rôle bi nga xamante ne bi ne ndaw yi am nañ ko ak responsabilité bi gàll seenu loos ñu war a liggéeyal penc mi ci njàng alxuraan jàngale nañ taxaw nag ci ñeenti tomb nañ taxaw ci mihwariyatu shabab fil mujtama place bi ndaw yi am ci pénc mi ak tamit namazij qur'aniya li shabab exemple yi nga xam alxuraan joxoon joxe na ko ci ay ndaw yoo xam ne liggéey nañ liggéey bu réeréy euh, bu ko defee euh, ak mu mayezaatu al shabab particularité yoo xam ndaw yi am nañ ko téye ci benn tomb muy liggéeyu Cheikh Ahmad Sakhir Lo ci ndaw ñi pour lay taayal thème bi nañ taxaw ci baat baatu ashabab ashabab ak al mujtama ashabab borom xam-xam yi wuute nañu ci baat bi lan la ndax jamoo shaab la wala boog masdar la wala ismu jamain la waaye li gën a wér daal mooy mooy baatu shabba ci arab fu mu ñëwee rek euh, boroom almaqayis nee na li muy tekki mooy an nama nama u shey wa quwatuhu fi xaraari taatarihi màggug mbir ak kàttanam ci tàngoor bu koy gaar loolu moo tax ñu naan sabba naaru aw sabbatil xarbu istaalat sawara wi tàkk na wala ger bi tàkk na bu kii walla fas waa ngi bajantu sabab nag mooy e, e, moment bi gën a am solo ci dundu nit ki ndax kàttan yi yàlla def ci moom foofu luy ubbeekoo kàttan yëpp moo tax bi ñu koy définir am na ñaari ittijaa ñaari tendance ittijaar biologie ñu wax ni shabab moment la boo xam ne commencé ci treize ans ba ci quarante am na ittijaar psycholo psycholo euh, euh, euh, tendance psychologique wax ni ndaw mooy mën a mën a la capacité de produire et de créer maanaam xud al xudratu ala intaaj wal ibdaa fekk kàttan gi mi ngi fi ak ndaw ma ngi fi bu kàttan gi nekkul nag ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw nekku fi moo tax Euh, baatu sabaab ñëwul ci alxuraan karim ak mustaqaatu waaye am na ay baat yu nuroog moom ay synonyme donte synonyme parfait nag amul ci arab loolu ibnu jinni wax mais am na baat yu xaw a nuroog moom comme alfata qaalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqaalu ibrahim innahum fidyatun amanu bi rabbihim alfata ibnu ashur nee na mooy ashabul muktamil mooy ndaw lu mat sëkk bu dee société société mooy mbooloom nit mu dajaloo al hayatul insaniyatu al mukawana min afraad tarbituhum aqida aw masalih hayawiya muhaddada mbooloo moo xamante ne bi nii dañoo dajaloo dëkk benn place pas-pas tënk leen wala boog ay intérêt yu ñu bokk mu am ñaari pénc péncum laa ilaha wal kaw na madda pénc moo xam ne ni yàlla amul le monde par nature et matériel ak pénc moo péncum laa ilaha illa allah pénc moomu kenn mooy kilifa gi mooy digle ñuy daas mooy tere muy bàyyi moom mooy yàlla mooy kilifa ñu baax ñi dalika bi anna allaha la alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum waxtasuma billahi huwa mawlaakum yàlla moom daa tànn ay ay ay yonente yónni leen jot ay ndigalam ak ay ak ay tereem ñaari pénc yooyu yëpp dafa taxaw ndaw moom moo ko taxawal mbooleem ñëw fés ci ñaari pénc ma la ak pénc mi ndaw yi ñoom ñoo ko fa liggéey ndax ndaw mooy activité ndaw mooy énergie ndaw mooy vivacité ndaw mooy tàngoor boo xamante du taxaw benn place benn mu nekk ci lu baax wala mu nekk ci lu bon mu maye zaatu shabaab ndaw ni ma ko waxee léegi dana ràññeeku ci ñett ba ca njëkk ma al qudra alal intaaj mën a produire mën a créer ndaw benn la ci alxamaas al aatifi ndaw sentiment moo koy dominer mu wuteeg mag mag moom xel mi xel dafa yàgg moo tax mu xelu moo tax xalaat moom ma koy moom moo koy dominer moo tax bi ci des ma xaabiliyatu taxayyur gaaw a soppeeku bu ñu jàngee l'histoire des révolutions l'histoire des prophètes woote yi ñu woote ñi gaaw a njëkk a wuy ji moom mooy ndaw ñi waaye mag ñi dañuy teey ndax alistijaabatu indal kibaar tanazul ani taarix tanazul ani xatt ndax mooy mooy mooy mooy mooy deltu gannaaw wa moo tax yonente bi na ne bi ma wootee xaalafa nii alshabaabu wa xaalafa al alkibaar ndaw ñi ñoom a njëkk a wuy si mag ñi mag ñi ñoom dañoo yéex a ñëw alxuraan jox na ay namaasi ci ay ndaw bokk na ci yonent Ibrahima alayhi salaam Ibrahim mooy ki nga xamante ne bi nii li ñuy wax an nubuwal qaida moom mooy ki njëkk a wammat xelum doomu aadama ba ndaw la jële ko jaamu ay bant ak i doj yooyu fekk xërëm yi mu toj xërëm yi def la mu def ñu ñëw ni kan moo def lii xaaloo sami'na fatan yazkuruhum yuqaalu ibrahim am na ko ñu dégg muy wax xale bu góor bi wax ñu ibrahim mu jàkkaarloo ñoom ba convaincre leen amatuñ lenn ñu jaamu suuf ñu siggi xool biddiw yi mu fekk leen fa ba bañ bàyyi bi diw ba ñu dem ci weera ñu bàyyi ba jant ba moom am nubuwa alqaayida lool ba mu koy def bi muy nettoyé société bi ci ay sobe ak bokkaale yàlla booba ndaw la kon kooku exemple la ci am na beneen ndaw ba alxuraan tudd mooy ismail ismail dan ya ibrahima yàlla rabbi habili min alsaalihin fa basharnaa bi gulaamin halim yàlla yàlla nga may njaboot ci nit ñu baax ñi wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi kilifa ak euh, béréb bi sëñ Maxtaar Naar di nuyu gan ñi fi dikk ñépp di leen jox seen wàccuwaay di bëgg wax ci tomb boo xamante ni benn la ci tomb yi nga xamante ni sunu boroom subhaanahu wa ta'ala yërmandeem ji nga xamante ni moom la am ci jaamam yi àddina ak àllaaxira te mu joxoñ leen ci ni leen bu ngeen ca sooboo di ngeen ko am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni moom itam yërmande sunu borom subhaanahu wa taala lay symboliser ci kaw suuf moom itam yërmande jooju mu joxoñ ci doomu aadama yi rawatina jullit ñi ñu bëgg lay taaye wax ji ci ay aayaat kon yoo xamante ni day jóge ci alquraanul karim waaye lenn ci ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duggee ci loolu nag wax ci li nga xamante ni moom lañuy wax wax alwaqful islaami sunu borom subhaanahu wa taala mi ngi ñuy wax ci alquran ci aaya yu baree bari waaye dama ciy tudd benn rek wa kaana bil muminina rahima sunu borom subhaanahu wa taala ku bari yërmande la ci jullit ñi wala boog inna allaha binnaasi la raufun rahim sunu borom subhaanahu wa taala ku bari ñeewante la waaye ko am yërmande la ci jaamami yërmandeem jooju moom la wàcce ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba wax ko ci alquran ci jeexantalu suratu tawba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 bu fekkente ne dañ ko jànge min anfusikum wuñ ko jàngee min an anfasikum nag mooy ki gën a ci ñi bokk ci ñi gën a cher ñi nga xamante ñoo ëpp dayoo gën a màgg aw wàccuwaay ci yéen mu bokk ci yéen waaye nag yonent la boo xamante ni lépp lu leen metti rek metti na ko waaye ku xër la ci lépp loo xamante ne lu leen di jariñ la ku am ci yéen yërmande la ak cofeel ci kaw loolu nag suñu borom subhaanahu day orienté jullit ñi ni leen alal ji nga xamante ne dama leen koo jox te nga xamante ni dafa bokk ci liy symboliser di wane sama yërmaane ci yéen ngir ngeen mën a defar seen dund àddina waaye defaraale seen dund bu àllaaxira fàggu fa aw yiw wu leen fay jariñ dama ni leen euh, joxoñ ci ab anamu joxiin woo xamante ni dafa doon loo xamante ne day sax dàq du dagg mukk saa yoo xëyee rek mu mel ni démb nga ko joxe wala tey jii nga ko joxe sunu borom subhaanahu wa day wax ni doomu aadama moom moo ko jox alal waaye da koo joxañ ni ko dee ko joxe wa anfiqu mimma mustax la fii fii dangeen di joxe ci li nga xamante ni man yàlla maa leen ko jox ba pare wuutal leen fa ni leen ngeen di joxe ci sama tur waaye nag njëriñ la di dellusiwaat ci yéen mu waxaat ci ah, saar woowu ci boppam man dha alladi yuqridu allaha qardan xasanan fa yudaa'ifahu lahu adaafan kathiira ana kan ci yéen mooy lebal sunu borom subhaanahu wa taala borub teraanga boo xamante ni sunu borom subhaanahu wa taala bu ko koy fay da koy ful di ko ful di ko ful defal ko ci ab yool boo xamante ni yool bu tedd la bu màgg la boo xamante ni amul yamukaay loolu nag borom xam-xam euh, dañ cee dégg ni. loolu moom mooy waqfu da cee dugg ndax sadaqa jaariya la sarax boo xamante ni da koy joxe duñ ko consommer ca saase mu daal di jeex waaye day doon loo xamante ni dañ koy dugal ci loo xamante ni dañ cay investir ki nga xamante ni moom lañ koy jox sañu koo jaay sañu koo lekk sañu koo maye sañu ko euh, def lenn waaye dañ koy dugal ci loo xamante ni day gën di jur di gën di jur di gën di jur di gën di jur saa su nekk rek mu mel ni yow yaa ngiy joxe sa joxe booba dakkul mukk yonent bi euh, euh, sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadiis ida maata ibnu aadama inqataa amaluhu illa min thalaat sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa bihi aw waladin saalihin yad'u lahu doomu aadama bi bu fekkente ni dafa génn àdduna sunu borom subhaanahu day dagg jëfam yu baax yépp bam des ñetti bunt benn bi moom mooy sarax boo xamante ni day continuer lu mel ni teen lu mel ni école lu mel ni téere waa moom day dugg sax ci ilmin yuntafan bi waaye lu mel ni aw yoon lu mel ni lépp loo xamante ni doomu aadama dañ koy jëfandikoo rek loolu day dugg ci sadaqa jaariya sadaqa jaariya boobu nag moom la moom la ñuy tuddee alwaqfu wala boog bokk na ci anam yi nga xamante ni alwaqfu da ciy duggee ci xeeti joxin yi xam ngeen doomu aadama day joxe léegi-léegi li muy joxe ñu daal di koy consommer mu jeex ca saase loolu aw anamu joxin la suñu borom subhaanahu wa taala da koy nangu day cay fay day ful fay ga waaye nag bu fekkente ne da ko joxe ci waqfu consommation bi du doon loo xamante ne dañ koy consommer tey rek mu jeex bu fekkente ne yow da joxe sa alal ci waqf bi ñu dugal ko ci ñu ne léegi dañuy tabax benn immeuble boo xamante ni lépp lu cay meññ rek day duggaat ci financement daara ji daara ji jël xaalis boobee noonu jël ci ay jàngale alquran jàngalekati alquran wala jàngalekati xam-xam ñu ñëw di former xale yi di leen jàngal. ñooñu noonu nga recruter ci lu mat téeméeri nit ñu jàngal lu mat fukki junniy nit fukki junni ñoonu jàngal téeméeri junniy nit ñoo ñu jàngal ba mu dem million yow sa la nga xamante ne moom nga joxe woon mu duggoon ci wax waqfu bi moom moo financé millions yi doomu aadama yooyu te million yi doomu aadama yooyu ñoom itamit buñ jàngalaatee ñeneen day dem ba ay milliards dem ba ilaa macha allah te kenn ku ci nekk ca ñooña sa dërëm dugg na ca loola nga gis ni loolu moom moo tax réewi jullit ñi nga xamante ne xam nañu importance wax waqfu dañoo teel a xam bunt boobu al imaam al Ghazali mi nga xamante ni moom ngeen di dégg te borom xam-xam yépp xam ko ci sufyankeek waaye xam-xamu islaam moom ci sadaka jaariya boobu nga xamante ne mooy waqfu école ba mu génne mooy al madrasatu nizaamiya ca la jànge moom imaamul Ghazali yaakaar naa xam-xamam ba ba tey jii ñu ngi koy jariñu di ca jariñe kon imaamul Ghazali ña nga xamante ne ñoo tabaxoon école booba noona seenu yool mi ngi continuer ba léegi képp koo xamante ne jëriñoo na ca xam-xam booba rek euh, sa dërëm booba nga ca defoon day am njëriñ boo demee Màkka tey jii. immobile bi gën a mbag su euh, tiim kaaba ga nga xamante ni bu ngeen xoolee da ngeen di gis euh, montar ba nekk ca kawam loolu ci waqful islaami bi la dugg nga xamante ni day financé xaramayni sharifayni waaye boo demee jaamiatul euh, jaamiatul azhar bu Égypte yaakaar naa ne ay euh, six cent nangam ci euh, gàddaayu yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam lañ ko fondé woon waaye Al Azhar boobaak léegi ñaata téeméeri junni wala ñaata million yi doomu aadama la formé te ña nga xamante ne ñoom ñoo ko taxawaloon woon sadaka jaariya la boo xamante ni moom la ñuy waqf bi day dugg ci loola ñooña ñooña jàngal ay boromi xam-xam ñu jàngalaat ñeneen ñu jàngalaat ñeneen ba tey ji yaakaar naa Al Azhar tasaaroo na ci àdduna bi yépp kon ñoo ñooñee nga xamante ni ñoom ñoo ca defoon seen alal seen sarax yooyee nga xamante ni moom lañ ca defoon day mel ni saa su nekk rek day gën a bees waaye bu ngeen demee lu mel ni Maroc da ngeen cee fekk jaamiatul Qarawiyyin moom itam ñaata million doomu aadama la formé te ñoom ñëpp ci waqf bi wala sadaqal jaariya ci lañuy dunde boo demee euh, jaamiatu euh, nuñ ko tuddee euh, Zaytuna ci Tunis du jeex exemple yoo xamante ni duñ jeex mukk boo demee état bu mel ni turki tey jii ñoom xam importance waqfu moom moo tax budget bi nga xamante ni moom lañ defaral waqfu dafa ñaar ca budget bi nga xamante ni ministre affaire étrangères moom lañ ko nattal mu ren jii boo demee turki école yu bëree bëri yi nga xamante ni moom mooy former doomi jullit ñi di leen def jox ay bourse di leen jàngal di leen dëkkal di leen faj di leen defal lépp ci waqf boobu lay jóge daanaka gouvernement bi da ci dugal alal ju bëree bari waaye jullit ñi ñooy indi seeni alal di ko dajale boo demee fu mel ni Malaisie nga xamante ni man mii fa laa jàngee xaalisu waqfu moom moo ma financé ba tey jii ma doon li ma doon may jàngale ñi ma jàngal di jàngal ñeneen te loolu ña nga xamante ni ñoom ñoo dugaleen seen xaalis mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo dugaloon loola kon seen xaalis booba noonu ku ma jàngal ku ma jàngal ku mu jàngal ba ilaa macha allahu day mel ni kooka noonu seen financement bi du dagg mukk lu mel noonu nag moom mooy al islaam yi kon mbokk yi ngeen xam ni boo jëndee ab ab ab ab dama koy téyel sama bopp waaye lu mu daw daaray kokki laa cay laa koy jox mu def ca nangam daaray kokki loola la cay def boo nee dañ cay recruter enseignant kenn du ko dugal ci ak lekk enseignant ba lañ cay recruter man nga ni sama immeuble bii kët man dama bëgg lépp lu ci génn nañ ko yóbbu daaray kokki waaye nañ ko jox képp koo xamante ni dafa jóge woon dafa jóge région Louga par exemple daaray kokki amul sañ-sañ def ko leneen kon yow mi nga xamante yow yaa ngaa joxe waqf bi la nga bëgg ca sa alal moom lañ koy def bu fekkente nag da ngaa jël la ngay joxe jox ko daaray kooke ni ko seetal noo ko jëfandikoo mu jëfandikoo ko yoo léegi daara ji moom mooy xool fa nga xamante ne la nga joxe foofu la yell mu dugal ko foofa waaye du doon lu ñuy lekk mu jeex dañ koy dugal ci ne saa su nekk rek day gën di meññ di gën di bees di gën di continuer yow mu mel ni da ngaa toog muy dox nga tëdd muy dox ngay nelaw muy dox nga faatu muy dox ñuy dekkal la ëllëg gi si biir ah, nga dem yowmal xiyaam fekk la nga joxe woon te mu doonoon tuuti loo xamante ne da nga koo xeebal suñu borom subhaanahu wa taala la ko ba mu ëpp jabalul uxud kon yaakaar naa ne loolu képp koo xamante ne am na xel da ngay dellu ca joxoñ boobu suñu borom subhaanahu wa taala nga xamante ni yërmaande la feese yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoñ ko nga xamante ni yërmaande la feese nga dugal sa alal fu mel noonu bu ba yóbbu la ci jannaatul firdaw ci nga am fa ay wàccuwaay yoo xamante ni yu kawe kawe kawe kawe lañu doon kon daal mbokk yi mi ngi noonu façon joxin ci lislaam boo xamante ni da sa lépp moom mooy continuer du dagg mukk na ngeen ci góorgóorlu maa ngi ciy wasoon bopp di leen ci woo nga xamante ni jullit ñi bu ñu boolee seeni man-man dajale li ñu am xajul ci daara yi waaye xajul sax ci projet islaam yi kon nañ gën a organiser wu ay caaxaan sax boo ko organiser mu dox rawatina loo xamante ni dëgg la loo xamante ni lu baax la kon nañ organiser wu fexe ba waqfu yi fu ñu ko mën a woote ci lislaam ñu dugal ci seen alal bu ko defee lépp luñ soxla ci société bi dinañ ko mën a financer te duñ tàllal seen loxo kenn du gouvernement du keneen hada wasalaamaaleykum wa rahmatulah waaw kon nag ñi ngi wax euh, nit ñi ni képp koo xamante ni bëgg ngaa joxe ci waqfu bi boo génnee fii ci buntu daara ji mag ji bunt bi ñuy duggee ci daara ji daara ju njëkk ji foofu noonu fa la taabali waqf bi nekk képp koo xamante ne am nga loo fay joxe rek mën nga faa dem nga joxe li nga xamante ni moom nga bëgg a joxe ci waqf bi ñu ngi yemale suñ kàddu foofu noonu di sant ñëpp di ñaan képp koo xamante ni dugal na sa dërëm wala sa lenn ci waqf bi rek yàlla na yàlla nangul la ko te fëlal la ko ni nga xamante ne noonu la ko daale ci aaya boobu ak hadis yi nga xamante ni moom lañ ca jàng hada wasalaamu aleykum wa wa Euh, jërëjëf oustaz Dame ci leeral yu am solo ci waqfu comme ni mu ko leeree mbokk yi ku ci bëgg am lu yeneen yi leeral seen bureau baa ngi ci buntu daara ji ñuy wax mbokk yi tamit ne bâche bi su feesee mbaar mi équipé nañ ko am na ay seize incha allah ñu ngi fi monté écran mbaar mi ci kaw ak ci suuf incha allah su ko defee ñu woo oustaz Aline Diop mi war a wax ci coordination des daara. mu jege si incha allah euh, Oustaz Alioune bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira wa baadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi daara Cheikh Oumar Sakhir Lo mi ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm euh, ñuy tënk suñu kàddu rek ci ne ñu ngi wax ci turu Tansikhiyatul Madaris Al Qur'aniyya mais coordination des daara yi nga xam ne ñoo jógee ci daara Cheikh Oumar Sakhir xam ngeen sëñ bi bi muy samp daara ji dafa am ñaan bu mu ñaanoon ak yéene bu mu yéene woon mooy dafa yéene woon daara ji yàlla nekk xetal kaay mujj jamono. yàlla yal yàlla nangu ñaan gi te ñu ngi am yaakaar ne yàlla nangu na ñaan gi ci biir xettaliku googu moo tax ngeen gis daara ji meññ ci njabootam ñoo xam ne ñii la mu leen waxoon mooy ku jóge ci daara ji loo mën a def baax na waaye la ma gënal mooy jàngale ji alquraanu karim ñooñu fi jógee na ubbi ay daara ci barab yu farañ ci fàcc barab yu uute te sore daara yooyu la daara ji encadré boole leen takk leen def wenn say pour yi yëkkatindoo di tegandoo mu wóor na la foo gis daara jooju ci kokki la bokk mi ngi ci projet kokki mi ngi ci mission kokki ñooñu nag seen kàddu lan yor te alay sow jiite ko ñu ngi fu ne ci biir réew mi ba génn sax biti biti réew mi di liggéeyal alquraanu karim ñu bëgg a xamal mbooloo mi seen wàll ci loolu mooy fi ngeen gis daara ju mel noonu seen wàll la ci ñaanu Cheikh Ahmed Sakhir Lo ko yàlla yërëm na ko ñëpp jàppale ña ko ñëpp teg bët façon ndimbal bu ñu am ci xalaat ak xam-xam ak man-man ñu së sëpp daara jooju ndax seen daara la ndax bari na ñu fay jàng ñoo xam ne ñi mun ñoo agsi fii te loolu day woyafalal daara ji yanu bi mu yanu xam ngeen ne chaque année daara ji ni muy inscrire buñ bàyyi woon bunt yi ubbiku daara ji du ko attan waaye ñooñu ñu ngi wàññil daara ji ab yan ba tey kon société bi nañu xam loolu bu baax sëriñ daara yooyu tam ñu ngi leen di gën a woo bu baax a baax ñu am yéene rek ne euh, mission bi benn la mooy yàlla lañuy ñuy liggéeyal mission bi benn la nañu defar jikko yi nañu ànd yëkkatindoo di tegandoo ba pare tim déggoo ci li ñuy def daara ji mi ngi leen sant toujours rek ñu nekk surgaw askan wi jage askan wi yaral leen seeni doom yaral leen yaral eh, jàngale leen seeni doom waaye tim ànd ak société bi ci lépp lu rafet ci wax ak jëf kon yow mii nga xam ne yow laay wax ak ñu bokk réew mi daara jooju fu mu la jege na ko bàyyi xel ñi ngi ñaan tim bu baax a baax autorités yi nga xam ñu ngi ci wetu école yooyu ñu yëg ne doomi réew mi lan néew na doole di jéem ñu jàppale leen ci jéem googu bu dara nekk gàllankoor bu bàyyi ko fenn kon bokk jullit yi askan wi daara si Ahmed Sakhir te sëñ Maxtaar naa loo jiite ko tey ñu di ko ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal may ko wér way wayfal yan bi ak équipe bi mu àndal ak mbooloo mi nga xam ne mooy association bi ŋànk liggéeyu daara ji te amal lu mel nii tey ñoom ñëpp ñi ngi ànd di ñaan daara yooyu ak fu daara mën a nekk rek na ci ñëpp taxaw jàppandoo parce que daara mooy suñu moomeel mooy suñu lépp euh, ab jullit nag amul lu ëpp daara kon nan fexe ba daar yi gën a ñoŋ gën a baax gën a taaru société bi ñu ngi koy ñaan bu baax lii la fi maam bàyyi woon bu mu daanu mukk na gën a sell na gën a baax surtout ci jamono yi ñu koy waxee muy jamono sedd ndey daara yi ak baay daara yi ak sëriñ daara yi nañu bàyyi xel xale yu ndaw yi ci sedd bi ci li ñuy sol ak ndox mu tàng mun mën a sangoo yooyu yëpp ay orientation la ak yóbbal yu leen di jox nañu am yërmande bu baax ci xale yi ndax si Ahmad Saxiloo daaraam bii mi ngi ko lalee woon ci baatu yërmande kenn du fi laal xale kenn du fi noggatu xale xale mi boo koy jàngal sax boo ko dooree sëñ bi nangu ko waaye du yem ak yow foofu dana ko jox yar mu fayu saxal sikkim na bee jaaw waaye boo laalee xale ba ngay ñëw sëñ bi dalaa waxoon daara ji daara yi xale la kon daara yi xale yi ñoo ko moom nan am yërmande ci xale bu baax a baax kon péncam Sénégal daara ngoog mooy suñu moomeel nan ko téye bu baax coordination bi waa daara yi nan gën a jàppaloo di teew ci réunion yi di joxe xalaat ànd bu buñ ko defee incha allah li kokki naroon a yanu dinañ ko wàññi lu bare bare bari kon coordination mi ngi delluwaat di euh, ñaanal sëñ bi bu baax a baax di ñaanal équipe bi nekk ci daara ji yal yàlla fay ñëpp gan ñi fi ñëw ñëpp yàlla na ñëw ci jàmm dellu ci jàmm yal na yàlla faj aajo biir ak aajo bitti suñu mbokk yi dem barzak yal yàlla leen yàlla yërëm te ñun ñëpp dañ leen di fekk kon nan rafetal jëf ak wax wa axiru daawaana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 المشركون إنما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ورهبانهم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 الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم صدق الله العظيم Euh, jërëjëf ci alquran ji macha allah euh, ñu ngi woo ki nga xam ne mooy wax ci turu njabootug maam Cheikh mbay Kabir incha allah mu ñëw joxe kàddu gi kiy wax ci turu.